presse bi jóg moo di dañuy dem ci ay élection muy élection législative yi ñu war a def fin juillet 2022 su soobee suñu boroom ma leen di jaajëfal lu bare bare bare ñi ñëw ak ñi ñëwul jaajëfal presse bi ndax woo nañ leen ñëw ngeen jaajëfal invité yi toog di leen remercier bu baax a baax a baax di jaajëfal acteur politique non politique yi ñëw ci jataay bi ma mën cee liim ay parti politik parti kaar leneen parti conservateur gisoon naa fi représentant wu PDC parti MPS faxas mu ngi ci yoon ak ay mouvement ñu ngi fi mouvement sopp Sénégal mu ngi fi mouvement dekkal sa gox mu ngi fi mouvement Gandiaye en marche pour le développement mu ngi ci ñu association pour la promotion de l'éducation et la culture musulmane mu ngi fi mouvement Aglow international mu ngi fi mouvement Sopp Sénégal mu ngi ci ñun mouvement action secouriste sauvé bi nekk ci Casamance yépp mu ngi fi galaxie communautaire mu ngi fi mouvement ànd dooleel mandeng Diourbel mouvement APD Afrique paix et développement teew na mouvement ànd defar Sénégal nekk ci Sénégal ak ca diaspora mu ngi fi pencum Sénégal mu ngi fi suñu coalition bi nag bare na association lool surtout nag association jigéen yi waaw bokk ci coalition bi li ma bëgg wax nag mooy ñun ay parti politique lañu ay mouvement lañu ay association lañu ay nit lañu waaye ñu ngi nekk di waxtaan ak ay kuréel yu bare waaw kuréel yu bare te dañu yaakaar ni dina sax gën a ci euh, yaatal yëf bi parce que boo nee coalition da bëgg ñëpp dëkk bi yëpp ñoo dugg si donc ubbeeku nañu coalition bi jariñ Sénégal la troisième voie jariñ Sénégal la troisième voie ma bamtuwaat ko jariñ Sénégal la troisième voie mu am solo nag ñu dellu siwaat gën a faram fàccee lan mooy coalition jariñ Sénégal la troisième voie coalition la boo xam ni mu ngi soqee ko ci li ñuy wax jariñ xam nga njëriñ mooy utilité Sénégal léegi loolu la soxla njëriñ wàllu njëriñ donc coalition bi jariñ Sénégal su ma tibbee jariñ Sénégal la troisième fois mën naa wax ni doxalin la doxalin doxalin bu bees loolu am na solo ñu du ca baaraam doxalin bu bees boo xam ni dafa ni dañu bëgg boole askan wi ndax bu ñu booloo ci la mën am ndam muy lu am solo boolee askan wi ngir li soxal askan wi ñu mën kaa lijjanti li ñuy wax demande social maanaam askan wi la mu soxla buy dem marché la mu soxla su yóbboo doomam lekkool la mu soxla su bëggee faju la mu soxla la mu soxla ci liggéey ak lépp dañ ci dellu si waat donc la mu soxla ak la mu bëgg ci lu baax aspiration la mu soxla ak la mu bëgg ca lu baax ñu mën caa taxaw ñépp ñu booloo loxo yi ndax mu mën a antu ndax ñun li ñu seetlu tey moo di ni ñuy defee politique xalaat ni rekk politik moo war a nekk ci loxo pouvoir ak opposition noonu la ñu gisee politique tey di politique dafa war a nekk ci loxo pouvoir ak ci loxo opposition dañu gis ne rek loolu dafay tax ba nga xam ne fitna moo nekk ci kalam te fitna su fi jógewul duñu régler dara day indi fitna te day tax ba nga xam ni ku ci nekk bopp sa bopp ku ci nekk say affaire bopp ak sa bu famille yenn saay sa sa bu famille danga koy fàtte loolu nekk problème kon ñun li ñu tax a jóg suñu coalition bi jariñ Sénégal la troisième voie moo di nekk kilifteef ci politique bu bees bañ nag li ñuy wax politique politicienne bu parparloo bi ak di respecter di bañ a di génne sa kàddu te doo ko respecté ñu yooyu lañu bañ bëgg nag suñu coalition bi indi lu bees par rapport ak li ñuy dund depuis indépendance 1960 ba léegi li ñuy dund moom la ñu bëgg mu dagg loolu moo indi la troisième voie jariñ Sénégal turu jariñ boobu nag lu am solo waaye dañu bëgg jariñ nit ñi nga xam ne dañ leen fi teg ñu jariñ ñu dara looloo tax nag troisième voie bii ñu am ci yaakaar dangay gis sax ñoo xam ne bu ñu nekkee ci campagne bi nekk ci terrain bi dañu naan dinaa la tabaxal l'hôpital boo ma joxee parrainage loolu naxe la ndax il faut ñu fàttali lan moo tax député jóg député dafa jóg pour toogal askan ca fa ñuy dogalee muy assemblée nationale ndax xam ngeen ni gouvernement am na assemblée nationale fa ñuy defee loi yi ak euh, yeneen yi activité am na justice am na ñun nag li ñuy wax tey mooy assemblée nationale li tax ñu bëgg dem assemblée nationale dañu bëgg taxawu askan wi ci mbirum loi yi ñuy wote loi yi ñu bañ fa nekk rek di tàccu seet ban loi moo baax ci askan wi ñu fexe ba ñu wote ko bu loi ba baaxul ñu ne du fi am ñu de looloo tax ñu bëgg dem assemblée nationale ñaareel bi tax ñu bëgg dem assemblée nationale moo di ni dañu bëgg dem toogal askan wi saytu lan la gouvernement bi di def su jaadoo ñu ne baax na su jaaduwul ñu ne ko baaxul bu ko defee te bu ko def loolu mooy rôlu député ci assemblée nationale ñu bëgg nag am député yoo xam ni li leen tax a jóg mooy askan wi leneen taxu leen a jóg te député yu civilisé yoo xam ne duñu ñu dóorante ay kurpañ duñu ñu saagante du xastante askan wi moo leen tax a jóg loolu am solo la donc ay nit góor ak jigéen yu am jikko yu baax wane ko ci assemblée nationale ndax mu tasaaroo ci biir askan bi te mu tasaaroo surtout ci jeunesse bi ndax jeunesse bi mag ni lañuy ñuy xool te assemblée nationale àddina bi yépp a koy xool ñu war am na comportement yu exemplaire comportement yu baax yoo xam ni dinga fonk Sénégal ci biir réew mi ak bitim réew en tout cas ñun de dañu yaakaar ni lii ñu bëggoon pour assemblée nationale mën na am assemblée nationale bu am njariñ am yar ak teggin mën na am waaye nag day laaj ñu joxante loxo loolu lu am solo la c'est possible na ci ku ci nekk dugal sa loxo